Babacar mbay Ngaraaf ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. yaay Alliance Sauver le Sénégal nekk itam conseiller municipal ca Guédiawaye. ñu am mbégte dalal la ci matinalu réew mi tey. alors euh, altine bi ay euh, yéenekaay dañoo xamle ni maire Guédiawaye Aliou Sall euh, nekk itam rakk ci njiitu réew mi dafa jaay mairie bu Guédiawaye waa Auchan ci njëgu milliard loolu en tant que conseiller municipal loolu ci mën a wax. loolu ñoo koy dégg nii ñu am ci mbetteel lool nag li mu mën a mooy man mi en tant que conseil municipal mosuma fekkee ab délibération yoo xam ne wax nañ fa fu ñuy jëlee locaux waaye di ko jaay waa Auchan rawatina ci un milliard xaw ma ñaata milliard li nga xam ne nag daal mos naa ko dégg mooy conseil ci ginnaaw Aliou Sall effectivement wax na ni maire bi dañu am ay jafe-jafe ci wàllu koom-koom mu xalaatoon lu jël yenn bâtiment ya xam ne maire bi ñoo ko moom ñu luye ko mel na ci loolu la bëgg a sukkandiku tey pour def lii muy def lii la ci war a njëkk rek mooy conseil bi war nañu léegi ëllëg ñu gën am vigilance parce que gars yi dafa lu ñuy wax fourre-tout dañuy jël loo xam ne ëmb na lu baree bari waaye du ñu wax dëgg dëgg lañ bëgg a def ak fañ jëm maanaam benn dëgg si rek lu rek bu soo gars yi validé mu jël mbir mi jox ko Auchan waaye dama bëgg a fàttali ñaari bi ci njëkk mooy lay bi ñu joxe taxawul parce que maire bi su amee jafe-jafe xaalis ñaari ko waral benn bi mooy gestion te loolu pour Aliou Sall beneen bi mooy recrutement massif boo xam ne Aliou Sall Samba Ndiaye Njoxor Ndiaye bu jóg bu ne mu jël recruter la di la fay ay salaire yu ëpp yoo xam ne ci xaalisu doomu Géejawaay yi lañ ca naqar sax mooy am na ñu ngi fekkoon ñuy liggéey ci doomu Géejawaay yi dàq na ne indi ay loolu nag tekkiwul ni mairie bi kenn liggéeyu fa am na set ay agents municipaux yoo xam ne ku waxal yàlla nangul leen seen xarañ nangul leen seen liggéey nangul leen seen njariñ waaye am na ci ñoo xam ne aussi dañ faa nekk amuñu fa benn njariñ budul ni di xalamal aussi nekk fa rek ngir leen fay ci xaalis doomu géejawaay yi ñuy saaga nit ñi képp koo xam ne taxaw nga benn mbir boo xam Aliou Sall def na ko d'accord ci rek ñu ñu Aliou Sall actionné leen ñu taxaw di saaga nit ñi ci réseaux sociaux yi. dal sa kaw kon jàpp dal sa kaw kon jàpp nañu ni boobu faute de gestion suñu ko amee am aussi recrutement massif yooyu ba mu jural géejawaay tey jii difficulté financière nañu xool beneen solution waaye bi ñuy wax affaire luye luye bâtiment mais bâtiment yi mën nañu ko léegi am ci xaalis beneen anam mooy tey ji Guédiawaye ku ne xam ne am na problème ay salle mi defee conférence yu mag Guédiawaye am na problème mu amee problème bu mag yenn salle mi defee yenn yenn yenn cérémonie yi ak yenn rencontre yi kon kay occasion la bu fekkee bàyyi nañ foofu yu jëkk ko luy ñooñu deuxièmement aussi am na ay service état bi ñu baree bari yoo xam ne bi fi may waxee état dafa luy ji leen fayal mën naa lim ci ñooñee waa service urbanisme bu Guédiawaye mën naa cee lim waa service eaux et forêts mën naa cee lim même waa sous-préfecture ak ñeneen ak ñeneen jàpp nañ ni su mairie bi gën foofu mën nañ jël yooyu service yóbbu leen foofu la ca des ñu di ko luyee di ci am as tuut def ci compte mairie bi waaye également de permettre ñu faire face eh, ci ñàkk bi ni ñàkk ay salle de conférence ak ay salle yenn cérémonie yi. léegi njaay mi bu fekkente ni am na yéen nan ngeen nar jàkkaarloo ak Aliou Sall. mais njaay ma sax dañuy jàpp ne wartu mën a am d' abord fii ci bu fekkee dañoo soxla xaalis sax Auchan bëgg Auchan ku munti doon euh, bëgg fi dara maa ngi xamal askanu Sénégal askanu Guédiawaye surtout ñëpp xam na ko sax déjà que ni maire Sam Notaire am na benn këyit bu wax baay boo xam ne mi ngi ko am loo xam ne romb na ay junni junni hectares ñaa ngi wax sax ay quatre mille sam cent mètres carrés yoo xam ne mi ngi jàkkaarloo ak stade Amadou Barry foofee la fa nekk suñ doon tey jox ko waa Auchan wala ñu jox ko waa Carrefour nga xam nekkoon nañ ci ay négociations avancées jàpp nañ ñi Guédiawaye dina ci am xaalis bu ëpp fuuf bi Auchan dara it dana permettre ñu mettre foofu en valeur. Amadou Sall moom mooy ni ko xam ne macha allah ragalul dara tiitul dara macha allah moom mel ne daal moom dafa am garantie que ni loo neex defar dara la ci fekk yaa sut ñëpp yaa mën ñëpp yaa Aliou mën lépp xam maa ngi fàttaliku bi ñu nekkee xale am na théâtre bu ñëw théâtre bu ñuy wax ba du mën lépp mais ñun géej waaye dañu am ñeme lépp ni ma amee ñeme lu nekk. démb mi ngi ci ngi ci affaire Auchan mais li ma bëgg a xam ñun ñëpp xam ko mooy mbir mii du jàll ñun fii ci géej waaye ñoo xam ñu nekk fukki junni mbaa ñu nekk junni mbaa ñu nekk téeméer mbaa ñu nekk fukk mbaa ñu nekk ñaar le nombre importe peu en tout cas doomu Guèye yoo xam ne am nañ seen dignité bu ñu war a défendre war a fay bor yu suñu ay mag lebaloon bi daan sàmm Guédiawaye dinañ laxasu sàmm Guédiawaye quel qu'en soit le prix du jàll. léegi location bi location bi adjoint woon nee na waxtaanee woon ngeen ko location bi. no mais location mais parce que Auchan fu ñëw di jël loolu du Guédiawaye par partie la Auchan du ñu wax jënd dañuy dañuy ñëw luyee bu ñu ñëwee dañuy luyee pour fanweeri at yoo xam ne mën nañ ko yeesalaat waaye fanweeri at kay soo ko luyee ay nit waaw ñu taj fa ñoom taj bâtiment yooyu ñu foogoon mooy luyee ay ay conférence wala luy yenn ay foire su amee luy yenn leeralul woon daal leeralul woon a imaginer jël bâtiment yooyu toj ko def ko naan dañ koy jox Auchan pendant trente ans bu trente ans yi jeexee ñu lekk ko keneen dama buñ bëggee xaalis am na yeneen mooy yu mën a amee xaalis Carrefour laa wax ñëw na di négocier benn espace boo xam ni Sam Notaire ñoo ko moom quatre mille cinq cent mètres carrés la. pour li Carrefour proposé mu ëpp xaalis téeméer gi nu yoon mais ba leer ba leer daal mooy lii kenn du ko fi nangu tey kenn du ko fi nangu parce que suñu di jàll kat bu ñu am mbetteel mukk Aliou ñu ko tudd ci mu am fi jaay jaay ko mbiri ko bu ñu ko taxaw bu freiné wul dana jaay police Guédiawaye jaay préfecture ba jaay lycée Limamou Laye jaay hôpital Rambo Déme jaay sax jàkka yeeg léegi nag ñu ne tamit euh, mu ngi tabax beneen mairie bu bees ndax Guédiawaye dafa soxla locaux yooyu. waaye effectivement Guédiawaye soxla nañu mairie yu beere bu bees boobu. parce que ñu ngi koy tabax di ko tabax bu jàgg ba léegi commencé nañ ko sax. jàpp nañu sax léegi mu pare mais loolu warul nekk lay yow da am ndaar toj ndaar mais et faut ñuy penser loo xam dañ koy bàyyi génération yi di ñëw mais pour que Aliou jàpp ne moom àdduna ak Sénégal ci la yem bu jeexee rek c'est le déluge daa am lu ñu ci fekk daa war am lu fi bàyyi tamit ëllëg ngir ñi di ñëw mais pourquoi chaque fois Aliou Sall jàpp lépp da ko war a jaay rek def ci poosam wala lépp da ko war a jaay wut lay jox leen euh, kuréelu askan askan bi li ci yëpp da ko ci poosam loolu moo fi dul jàll tey duñu xaaral ba egg fu muy jaayee ay lycée Limamou Laye ay jàkka yeeg jumaa yi ñuy soog a jóg léegi nga ñuy jóg ndax daw ca ba ngay am i mhm. ñu wax ci beneen mbir aussi bu ko soxal moom Aliou Sall muy affaire Petrotim euh, ñu ne instruction bi jeexal nañu ko fi mu ne procureur la ñuy déglu ci réquisition wam yéen lan ngeen di xaar ci boobu leen mbir ba mën biir moom wax dëgg yàlla xaartuma ci dara parce que biñ koy yëkkati dañu jàppoon ni Macky Sall moo nu digoon réduction des comptes Macky Sall moo nu digoon aussi gouvernance sobre et kon li ñu am dañ ko war a ñoŋol dañ ko war a aar war koo sàmm waaye réew ñu koy saax saaxee ñu gis ni waxoon nañu aussi ni moom du protégé kenn dans la mesure où rakam ak Franck tamit ni tudd ci mbir yoo xam ne leeru tee na suñu xel ñu jël mbir yóbbu ko ci yoon bañ ko yóbbu ci yoon nit ñi di ci xeex sax fulaaluñ ñu waaye il a fallu que Mayeni Jones ak BBC dugg ci affaire bi refaire surface procureur saisir du dossier waxoon ñu wax ju teexeel joo xam ne xawoon na ñoo joxoñ ni dama la ngi nelawal bañu ñu commencé enquête yi man waxoon naa dépp ñu génne ci dig ni li ma jaaxal te tey sama xel de mooy le fait que am ay témoins yu am solo ci mbir mi ci déglu wuñ leen te damaa jàpp ne bu fekkee mbir dafa lëndëm nga bëgg mu leer képp ku ci xam dara war nga ko mën a war nga mën a woo rawatina nag ku ci mel ni président wax nga xam nekkul n'importe qui Abdoulaye Wade moo nekkoon président du Sénégal te bokk na ci ñuy njëkk indi mbir mi ci place publique bi Franck Timis moo ni Karim Wade dafa dem bañ a signer contrat maa ni kon kar fin boobu Karim Wade suñ ko dégloo dina wax lan moo tax duggul woon signé contrat bi lan moo ci nekkoon lu lor Sénégalais yi parce que d'accord ji woon signé. maa ni aussi Nafi Ngom Keïta bi nekkoon njiitu OFNAC nga xam ne aussi moo nekkoon njiitu IGE wala boog mu bokk ci njiit ya jamono ji président Macky Sall di sant waa IGE nañu lëj mbët mbiru Franck Timis ak mbiru Petit Tim boobu noonu kon kookee ñaari position yu permettre nag mu xam ci lu bari te it nga bañ ko nga bëggoon nga nangu patriotisme am ah, gëstu na biir réew gëstu bitim réew bi ma ne kooku déglu ko mën ta ñu yokk ci Baba Aydara yokk ci inspecteur yi nga xam ma ne ko IGE muy Gala Samba Omar Sarr yokk ci Mayene Jones mi indi woon coow yooyu yëpp ñu teg ko fa dégluwuñu leen di ñoo xam ni dafa mel ni ñu indi woon sax bu ñu sàng ni ñu ngi xas man booba la ci sama xel tee ñu teg ci ay far ñu gis ni ci benn presse ñu ne way OFNAC bi na rapport daal ni Aliou Sall set na ma ne ma ne ba ma lii rek texte gisuma ci loolu man daal li ma gis mooy dañu dañu waxoon ñii nañu topp Karim Wade ak Ibrahima Mbodj mais loolu du lu bees waaye boobu rapport aussi moo waxaat ni Macky Sall non seulement na annulé contrat yi waaye ñi buy sëxate ñoom dara mu ñoom Frank Timis ndax contrat yi jaar si yoon. kon kay yow da jàpp ne non-lieu bi ñu doon ruumandaat ci loolu lañ jëm. waaw ci loolu lañ jëm mel daal daal ñoom daal dañoo taxal benn procédure jël seen ay paan duy ko ba mu fees dell seen saabu def ko ci xabar ba mu xëpp wépp bu ñu ci dugal mu set waaye nañ xam ne le monde aujourd'hui est un village planétaire Sénégal daa bokk yeneen di kuréel te mbiru pétrole nekkul kese mbirum Sénégal lool moo taxoon ñun ñu xalaatoon jëpp ay jamono te def nañ ko yóbbu ay plainte bitim réew ndax mbir mi leere foofu li ñu gënaloon nag mooy comme a dafa ni tubaab sax moo ne le linge se lave famille li ñu gënaloon moo ñu waxtaane ko waxtaanu biir néeg fii ci Sénégal ñu def li ñuy wax vérité une fois la vérité éclatée ñu def justice buñ ca paree mën nañ sax def réconciliation autour de nos ressources comme que comme pétrole et le gaz waaye comme loolu yëpp amul nag yuuxu na fa yaakaar wàllu rek loolu tax ne ñu bi turée moo ñu dese te xamoon nañ wala di ko suñu plainte toog di xaar yaakaar ngeen foofu dara ruusee fa ci wàllu yoon am nañ fa yaakaar gu ndax foofee moom Aliou Sall fii la mën a amee impunité fii la ko mën a de waaye foofu mënu ko faa amee mu Franck loolu leer nañu la d'accord léegi yéen ñi nga xam ne woowoon nañu leen ngeen dem yóbbu li ngeen xam ci mbir mi ci yoon muy euh, appel à témoin bi fi euh, procureur defoon yow ak ñeneen jàpp nga ne li ngeen fa wax doy na sëkk ngir taqal Aliou Sall non a xool li ciy Sénégal perte nan la koy daboo c' est pas la personne d'Aliou Sall qui nous intéresse wax sànq sax li ñuy yitte dëgg dëgg dëgg dëgg mm-hmm. mooy vérité suñ ca paree justice suñ ca paree réconciliation kon wax dëgg yàlla du ay question tax Aliou Sall dootulee parce que dafa mel ni kon day nekk benn combat crypto personnel honnêtement c' est pas ça ci bu ñu ci sa question nag mm-hmm. ñun lañ ca xamoon mu bari ak mu néew wax nañ ko waaye du ñu ñu indi ay preuve day am procédure fu muy toll dañu la dañaan kat lu la wala mbir mi kat day na waar ñu alerte da nga gars yi kër mbiri kër yéeme na. Mhm. na ngeen gëstu la moo tax lii am. lenn rek doy na ci mbir mu yéeme mooy président Macky Sall moo arrivé au pouvoir gis ni mbir yi doy na waar mu sant a e ñeen ak gëstu leen ma mbir mi. waaw laata ñooñu di indi seen conclusion nga gaaw signé contrat bi ci suuf signé ba dëgër bi ci suuf yemuñu sa ñooñu indi seen rapport daat ni kat ñii li ngeen ko joxe baaxul li ngeen jox jaaduwul. nañ retiré contrat nga dëgg sa tànk loolu kay moo gën a tey xel. beneen mbir bi ngeen doon wax aussi mooy mbirum coude soxal Cheikh Oumar Anne Pape Alé ñoo livre bu bees euh, yëkkatiwaat euh, coow loolu euh, yéen nu ngeen ko jàngatee ak xëy na itam défense bi nga xam ne waa nguur gi organisé nañu ko autour de Cheikh Oumar Anne bu dee mën na ko waxee noonu. waaw fii de xam nga mooy li ñaan gàcce du rey waaye bu gàcce du rey yaakaar ne Cheikh Oumar Anne li ñu xaar ci daal dem ndax mënumaa lugal seen i yëf ba pare nag di comme di dox mbedd bi di ma xool waaye defee ko nen day parapluie di ñoom ne sa ngoom Keita te loolu dafa naa fi sax il revient en premier lieu au président Macky Sall de défendre Nafi Ngom Keita parce que warul lekk di ku ni këlëkëlee ndax moom moo ko woon nommé ko sant ko mission mu def mission bi conformément ci liñ ko sant ak li ko loi wax ak aussi ngëm-ngëmam ak bëgg réewam tey ñu koy ngaw ŋawti ŋawtee di ŋàbb ab deram pàcc fo ko fay jëmale loolu dama jàpp dafa ñaaw mm. Cheikh Omar Anne li muy def cinéma la même moo la ko xam du mujj fenn mbir mi nag du mbiru Pape Alé Niang du mbiru Modou Niang du mbiru Nafissatou Keita mbirum Sénégal yëpp ndax boobu xaalis bi fas sax saxee ko Pape Alé Niang moomu ko Nafissatou Keita moomu ko Modou Niang moomu ko Sénégal yëpp ñoo ko moom kon combat boobu combat sénégalais yëpp la. Macky Sall xëy na ngir euh, xaalis bi ñuy pasar pasaree dakk moo tax mu daal di euh, tere njëndum oto ñeel nguur gi ba fii ak euh, jëmi jamono def na itam at ci bopp réew mi ginnaaw ba ñu ko falaatee loolu yëpp noo ko jàngatee. waaw bi ci njëkk mooy Macky Sall moom wax dëgg yàlla yàgg na di jël di annoncé ay bon ay ay ay ay disposition ak ay mesures yu baax waaye mel na ni moom daal moom sax am na problème pour jàllale li nga xam moom mooy mébétam dañuy gis chaque fois dafay jël ay mesures yu am solo mais ñi ko xam ñoo war a chargé wu exécuté ko duñ ko def at bi mu def nag suñ koy évaluer suñ koy xayma dañ koy xayma ci lim diggante woon ak ñun Macky Sall lim ñu diggoon bokk na ci gën a la ci gën a siiw mooy li wax sànq rek sàmm koom-koomu réew mi waaye tey lan la ñu gis saax saaxee àll réew mi newoon na aussi xam même da koy génn ci wàllu gestion wu réew mi tey gis ne Aliou Sall daanaka mu ngi si moo fépp moo fa nekk moom mooy Aliou fépp rek macha la ca topp aussi mooy am na ay dëgër bopp yoo xam ne ay nguuram dañ koy def nit ñi di ci ñaxtu di ci jooy ne Macky Sall di ci mën jël benn saafara benn ci exemple tey jii plan Jaxaay ay doomi aadama yoo xam ne dañoo kof ko fi woon nekk ay petit fonctionnaire ñi nekk ñu jëngi ci informel ba am seen dërëm ak seen ñaar dërëm dajale ko takk seen seen ciir xëy sax muñu lekk di lekk di lekk soo bi ba mbaa mbaxal ngir bëgg am kër ba tabax seen kër fii ci banlieue bi muy diggante Pikine Guédiawaye ay ay ay Boune Yeumbeul et ndox mi sonal leen état bi jëlee leen fi depuis 2005 toj seen i toj seen i kër ñi dafa ñu doxal jaxaay mu jox ñenn ñi mu des tey ay trois cent et quelques familles yoo xam ne depuis quinze ans fukki at ak juróom ñu ngi ci location mu métti lool ci ñoom nguur gi war lañ jox seen kër yu bees yi jaxaay joxu leen ko ci boobu jamono mu am ñoo xam ne amuñu si benn droit. jóge ay Grand yo ñu jaar ci ay Copena ñu jaar ci Fouret dëkk ci dëkk ci kër yoo xam ne ñi ko moomoon mooy ñëlee mais nguur gi tax du seetaan boobu léegi ñu ngi ciy wax ba ñoom tey ji sax ñu ngi nekk ci ñaari mbir benn bi mooy porter plainte état du Sénégal benn bi mooy def ñoom benn euh, grève de faim forfait ca place de l'indépendance boo xam dañu fa jógee mu ko tànk lu dul ni dañ jël jox leen seen kër wala boog jublu leen ci Almeria rek. jërëjëf Babacar Mbaye Ngaraf euh, ñu amoon mbégte dalal ci matinalu réew mi fàttali ni yow yaa njiital Alliance Sauver le Sénégal conseiller municipal nga itam ca Guédiawaye. merci